moom li mu bëgg mooy euh, garaawal mbir yi euh, ba peut-être ñu ñu daan daan yoo xam ne. ñaata temps la demandé moom concrètement combien de euh, temps la demandé. deux ans deux ans d'accord ci amende bi. non dommage intérêt yi ami ñi bi dafa laaj ñu jox ko genn wàllu milliard. xam nga genn wàllu milliard moom dafa yéeme lool ci koo xam ne da nga ne rek dañ ma dañu foq sama musóor ak dama doon sànnib 16 ñu dogale ma ma daanu. donc ñu ñu jàpp ne tribunal du loterie tribunal du 1xBet boo xam ne dangay ngay ñëw def sa jeton pour euh, gagne xaalis bu bëri ku bëgg a euh, tedd ku bëgg a am teraanga da nga koy liggéey yi mais du tribunal bii moo la koy jox.